Hello from GRTS. Here is an announcement. His Excellency the President of the Republic, Sir Professor uh, Dr. Alhaji Yahya Ejiji will be hosting a wrestling championship in Kanilai. Wrestling champions from Kasamas, the Nyomis, Funis, and many other wrestlers will be competing. The wrestling, henceforth, commences at 6 p.m. this evening. mbokk yi lii nag yébaane la di leen xamal ne tey nag am na ab jongante bëre boo xam ne mu ngay xew foofa ca Kanilaay jongante boobu nag ñu ngi fa yaakaar ñi di bërekat yoo xam ne ñu nga jógee ba Casamance ñoomi ak tamit foo ñi di leen xamal ne nag ay yeneen i yeneen i jongankat jonge jongantekat yi bërekat ñoo xam ne dinañ fa teewee mbokk yi benn tey rek ki nga xam ne mooy njiiti réew mi His Excellency Sir Professor Dr Alhaji Yahya AJJ Jammeh dina toowee mbootaay dina teewee jotaay booba di leen xamal li nga bëre dina commencé sa juróom benn waxtu ci ngoon bés bi I ah. ah, hope it was not bad. ma wayjur bu baye ko ma ñoo fi gis fi ay mbokam bi suma ñoom bàjjen jomeeg ñoom bajjan sira fatim ak suma jaam yi nga xamne ñoom la fi fekk ma kontaan ci lool ak moromam yi nga xamne ñoom la daan andal ndax man suma fa suma xarit la won lool lolo tax nak ma kontaan delu ci waat fi nga xamne ne fi la ciosano eh ma ngi len di nuyu yeen ñëpp ci programme ñu ni neen bi e, niñ ko aadawo di ko defee nag béréb boo xam dem nañ fa dina ñuy seet kenn koo xam ne dina ñu mën a waxal béréb boobu fan la féetee ci biir réew mi ak naka la béréb boobu cosaanoo euh, fii ci Kawur nag euh, ñu jox kàddu gi Alaaji Kebaalum moom mu xamal ñu li nga xam ne moo di cosaani Kawur ñu door a dugg ci li nga xam ne mooy li ñu war a waxtaanee tey ci programme bi. di kontaan si gan ñëw ci ñun di gan ñu teel yu baax gan yu ñu yàgg a dégg rek gis leen ba gis leen tey ko am nañ ci kontaan ci loolu waaye maa ngi xam waa Kawur ak am nañ gan yu ndax ku doon dégg te gisula ko yàlla dox ko dox dox ba ab si si yow nga jàkkaare moom jana moom gis ko xam ne kii mooy diw sant yàlla bu baax la te ngeen dégg dégg bu rafet bu sant bu suñu xool sedd seen wax dinañ jub dinañ rafet te du yàq tuuti kenn kon ñu ngi si kontaan bu baax di sant yàlla. Tusaani Kawur nag li ma ci xam bëriwul ndax man bi ma juddoo ci ma fekkoon fii muy alkaali Kawur ñu ko wax euh, Mari Hatta waaye taxul ma xam ko waaye Baye Assane Ndiaye. kooku moo sama bàyyi doon moo am ñoo bokk naa bokk tool kooku xamoon naa ko bu baax mu xam ma biñ fi yàlla joxe suñu borom at apam jeex alaaji mu bàmba lañ ko jox mu am ko am ko ci kaw lool kaw yàqu bi apam jeexee seen caa mi moo ko amoon moom itam bi apam jeexee jox ko Tapha Ndiaye moo ci nekk nii tey tey ah suñ doom la suñ jabaan si yëpp la kii di wax léegi di Aïda Diop mii dañ ko wóor la ci saanoo ndax moom ñoom mbéy mi su naa Aïda Diop naaw seen ñoo bokk xeet ñoo bokk maam ñoo bokk ne Farim Mbaye man xamoon naa ko mooy doomi mooy doomi nijaayam mosuma doomi bàjjen di ma kale ku ko xam ko baax la kon kontaan na ci bu baax di leen gërëm ci seen ñëw seen teew bi di rafet ne am nañ ci yaakaar bu baax kaw cosaanu kawul nag man li ma ci xam bëriwul comme ni ma ko waxee noonu kawul nekkoon dëkk boo xam ne dëkk bu rëwul bëriwul na ay bitik amoon na barsees amoon na morom porom amoon na compagnie am morom filees am wii kiiw amoon jiitu siin fi ñu daan yóbbu gerte gi yii bitig yi maa nekkoon fi ci kaw bitig yi maa gëm lañu xam ne yu rëy lañ loolu xam na ko ci kawur gannaaw loolu itam kër gi ñu teg fii cosaan la ci kaw yàgg na ñu fi ne bëri moo leen mag waaw ñoom xam nañ ci dara seen taam ni maa ngi moom ñëpp kawur lañ judd ñëpp ñoo fi mag tey ci xale yi kon loolu xam naa ko ci cosaani kawur kër fi baax ñoo nekkoon kawur di suñuy bàyyi nekkoon benn comme ni ngeen ko waxee benn bi ngeen bëggoon suñu bàyyi noonu lañ meloon noonu nekkee woon ñoo bokkoon jàkka suñ julee timis wasifa julli gee tasaaro ñibbi fajar ñu dee ci jàkka ji julli fajar wasifa ñibbi loolu xam naa ko ci kawur li ngeen doxal nag baax na pour fekk fi juboo fekk fi jàmm moo ne kawur kawur benn bopp lañ kenn mënu ko xaajale ñaar boo amee bés a xar comme démb de bi amoon ñëpp di ko ci dëj bi ñëpp nettali ko soo amee bés ngénte ñëpp ay ñëw sa xol seedi ci ngénte li sooy takk jabar ñëpp teewle la loo fi def ñëpp ñëw benn bopp lañ a xaajale amoon na jaxasoo ci na fi mu nekk parti benn lañ ki fi toog tey di jaaya jàmme jubal na réew mi defal na réew mi yëpp kon xam gis nañ ko kontaan ci moom. place liggéeykaay booy dem fekk nga fa jàkka mbaa juma ba ci place police yeeg saana may ñëpp am nañ place am juma kooku defal na di yóbbu nit di ci boole ngeen xamee ko noonu. Kawur dëkk bu baax la dëkk bu tedd dëkk bu am wërsëg problème problème mosu fi am ci Kawur am kenn ko xam ne kii mosu ngaa jote ci jabaram mbaa ci sa alal mbaa ngeen dem koot mbaa ngeen yàquwante ci affaire alal mbaa ci àddina amul ci Kawur li mu wax nii ñëpp seede nañ ko kon may ma la ko fi ngeen baan ñaax man maay Alaaji Keba lu mu ko wur waaw asalaamaaleykum jërëjëf Aida ah, ni nga ko waxee noonu la yow yaay suma borom tey moom damay sëgg rek nga dóor waaw liñ ci bugg a sànni mooy ah, li olof yi di wax nopp moom ak boroom ah, dëgg la suma ñi nga xam ne suma maasi baay gi ak sumay maasi nijaay yi ñu ngi fi waaye ñun tamit ay jàngalekat lañ te léegi-léegi ñu def ay gëstu gëstu nañ ba xam nañ tuuti ci politicien bu mag ki ñu xamee woon Pierre Sarr Ndiaye gëstu nañ lu tuuti ba xam ci politicien bu mag ki nga xam ne nekkoon na président fii muy président Jawara parce que ñun ay jàngalekat lañ ci biir gëstu boobu noonu nag balaa ngay gëstu ca biti da nga war a gëstu sa biir njëkk waaw ci kaw loolu ah ñun tamit dañ daan toog ak suñ ay kilifa di toog ak ay mag yi di déglu ci ñoom li nga xam ne nag moom lañ déggoon ci ñoom muy nopp biñ déglu woon ci ñoom lañ ca tànkee moom lañ bugg a pour ñu ñu ñu sànni ko ci ah, cosaani kawur lañ wax suñ ne cosaani kawur comme ni ko Palaaji Keba waxee noonu la waaye dëkk bi nga xam ne moom moo njëkk cosaanu biir kawur mooy Touré Kunda alkaali bi moom laa dendoon nii muy Alaaji Lamin Seydi Touré Kunda moom moo njëkk sancu fii nekk fi ay ati at jamono di dem ba mu am ñu ñëw ñoom ñu ñu ñu ñu dalal leen